maa ngi rafetlu mobilisation bi nga xam ne gis nañ ko Diourbel parce que Diourbel yëpp génn nañ jàngalekat yi génn nañ li ko wane rek mooy détermination bu ñu am pour faire respecter accords yi nga xam ne dañ ko signé ak gouvernement wu Sénégal donc gouvernement bi amul beneen solution lu dul respecter accords yooyu. gouvernement bi day fo parce que bu dee ay menaces moom moo leen dese ñun du menaces yi ñoo ñuy tere ñu continuer def liggéey bi nga xam ne dañ ko war a def liggéey boobu mooy lan. obligé gouvernement wu Sénégal respecté accord yu mu xaatim ak jàngalekat yi bu dee moom dafa yaakaar ni menace mooy régler problème bi bu ñu génnee ci plan d'action bi évaluer ko bu ko nécessité ñu dem vers un huitième plan d'action mais yen ñëpp gis ngeen mobilisation bi lépp lu ñu gisoon ci yeneen région yi gis nañ lu ko ëpp tey Diourbel donc ça veut dire que détermination jàngalekat yi mais détermination bu wóor la te détermination boobu luy solution bi rek mooy proposer jàngalekat yi lu concret menaces yi on s'en fout nous c'est pas notre problème